tabaski nekk sunna muakkada min sunanil islaami lil qaadiri alayha mu nekk sunna suñu feddali sunna su ak sunna muakkada mooy loo xam ne waroo koo bàyyi fay ko sax dina la ci fekk waaye boo ko bàyyee du am bakkaar loolu mooy sunna muakkada sunna la juñu ñu dëgëral xanaa moo topp ci farata tabaski nag sunna soosu la ci ki nga xam ne mën na ko imaamu malik nee na addaxiyatu sunnatun wa laysa bi waajib nee na tabaski sunna la nekkul lu war lu war mooy farata farata boo ko bàyyee da ngay bakkaar sunna la soo xam ne dañ koo feddali dëgëral ko mu ne wala uhibbu li ahadin mimman qawiya ala thamaniha an mu ne man imam malik de bëgguma ki nga xam ne mën na ko am na kàttan bi am na njëgu njëg li mën na koo jënd mu daldi koy bàyyi waaw imaamu malik nee na man malik de bëgguma koy tuddawoo sama ngiir mii man may sëriñam mu bokk ci sama ngiir mu mën a jënd am njëgum xarum tabaski daal koy bàyyi bañ ko def kon sunna la soo xam ne dañ koo feddale ci ab jullit bu ko mën mu daal di koy def lii dalil nag ne sunna la du farata mooy xadis bi nga xam ne imaamu muslim génn na ko muy xadisu umu salama yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne iza raaytum xilaala zulxijja bu ngeen gisee weeru tabaski daa di teru wa araada ahadakum an yudxiya kenn ci yéen bëgga tabaski fal yumsik min shaarihi wa azfaari na téye ay kawaram ak ay weyam bum ko leel kon mu ne fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam an yudxiya dalilun ala annaha gayru waajib ci xadis bi wax ji yonent alayhi wa alihi kenn ci yéen bëgg tabaski bëgg tabaski nee loolu day wane ne du farata ci moom nekkul lu war waaye nag sunna la amma man kaana qadiran alayha bu fekkee ne nag nit ki mën na ko am na njëg bi mën naa tabaski am na kàttan bi fa tarakaha mu daal di koy bàyyi lànk bañ koo def fa innahu yudammu ala dhalika kooku de dañ koy ŋàññi ca la mu def sharia da koy ŋàññi yonent bi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne am nga man wajada sia walam yudhi fala yaqribanna musallana sunu yonent alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo ne dangaa am pexe dangaa am yaatuwaay nga mën a tabaski tabaski woo yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yow bul jege sunu jullukaay jullit bi nga xam ne yàlla mën na ko am na lu mu jënde ab gàtt pour tabaski mu ngi ci poosam mu ngi ko denc mu lànk bañ tabaski yonent bi nee na waa jooju bu mu jege sunu jullikaay bi mbokk jullit yi tabaski kon lu war ci ab jullit la bu ko mën mu mën koo def sunu borom subhaanahu wa moo ko santaane ci alquran mu ne fasalli li rabbika wanhar demal nga jullil sa borom te loj mu ne wal muraadu bi nahri zabxu dahaya yowma iidi nahri aaya ba muy tekki mooy rendi gàtt yi bis bi ñuy loj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa amila aadami min amal yowma nahri amul benn jëf bu doomu aadama di jëf bis bi ñuy loj gëléem di rey nag yi ahabu ila allahi min ihraqi demi bu yàlla gën a bëgg ci tuur deret bépp jëf bu doomu aadama jëf lu mu rëy rëy rëy rëy ci bisub tabaski tuur deret moo gën a rëy loolu ci yàlla kon loolu dalil la buy wane ba tey ne kon tabaski ci ki ko am dafa jaadu mu def ko sharia day sàkku ci ab jullit bi nga xam ne mën na mustatee mën naa tabaski xur gor la muslim jullit la muqiiman aw musaafiran dafa tukki walla dafa sax ngi ci dëkk bi demul fenn buusewul mètre zakaran an aw unsa soxiran aw kabir góor la walla jigéen ndaw la walla mag la mu am kàttan mana tabaski sharia sant na waa jooju mu daal di tabaski mën na ko na tabaski gor la mën na ko jullit la tukkiwut walla dafa tukki góor la jigéen la mag la ndaw la yii yépp bu dajeeg benn baat mën na ko na ko def loolu la sharia jàngale loolu mooy na yonent bi alayhi salaatu mu ne dem nañ sax ba sunnaal ki nga xam ne jirim la góor la walla jigéen bu fekkente ne moom jirim jooju baayam bi muy faatu bàyyil na ko alal bu mu donn su boobaa moom moomu alal jooju baayam bàyyi dañ ko ciy génneel tabaski ay waliyum dañ ko ciy génneel tabaski mbokk jullit yi kon tabaski du ay caaxaan du ay aada du ay kër gi kii def na ko man mun naa ko bañ a def ndax su ma ko defee ya yàpp day yàqu déedéet tabaski jaamu yàlla la rendil saraxe boroom xam-xam yi nee nañ jënd tabaski rendi ko moo gën nga saraxe njëg li jënd tabaski rendi moo gën nga saraxe njëg kon dana jaadu ci ab julit bu gëm yàlla tabaraka wa taala mu tabaski ngir yàlla mu tabaski ngir sàmba ngir demba ngir ngir ngir mu yëg ne alquran nee na lan yanaala allaha luhumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na soxlawuma yàpp bu bëri bi soxlawuma deret ji waaye ragal yàlla gi puus ba ngeen mën ko def ngeen jóg pour def ko ngir am ragal yàlla ngir am tiyaaba loolu la leen yàlla tabaraka wa taala di faye nu war a góorgóorlu ci tabaski génne ci bakkan génne ci ay aada génne ci ay caaxaan ak ay xarfa fuufa ak ay bidaa léeg nga gis xarum tabaski ñu def ko xarum bidaa xarum tabaski béjjéen bi nangam nga gis ku la ne làmmiñ bi nangam ku la ne nopp bi nangam ñenn ñi sax dañuy dem ba buñ koy rendi dañuy indi ay pot di dëkk deret naan gis nga deret yi boo ko dencee subhanallah mbokk yi deret sobe la deret jooju di génn ci baatu xar mi buñ koy rendi deret jooju est-ce que xam ngeen ne sobe la est-ce que xam ngeen ne ki doon rendi xar mi deret jooju laal ko est-ce que xam ngeen ne njàppam toj na est-ce que xam ngeen ne kii doon ñàdd xar mi deret jooju tuuru ci ay loxoom est que xam ngeen ne njàppam toj na waaw deret jooju nekk sobe naka la ko nit di jëlee di ko di ko def ay ay garab wala di ko def ay ay yu kenn xamul di ko takk di ko diwoog yal na nu yàlla taxaw yal na yàlla won ñu dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na yàlla won ñu neen ñu wërsëgal mu wërsëgal ñu sori ko loolu mooy darsu tey incha allah ba suba ak jàmm ñu eggali tabaski bi yal na yàlla def ci ñun tawfiq nangul leen nangul leen nangul ñu nangul leen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa